gars yi di dem Europe ñii di dem ay Suisse ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay Burkina Faso ak Niger daal ñoom ñii seen digganteeg France fi mu ne dañoo bëgg mu set wicci ci lépp loo xam ne jàpp na ne France yoroon na leen ko dañoo yàkkale xel xabaaru bitim réew ñetti réew yii di Mali ak Burkina Faso ak ci li ñu nekk fan yi diko ko moy créer seen monnaie bop bop ñom ñetti rew yi ñokay bok ka ko xamle day moy ka nekk ca boppum réewum niser jamono yi dimanche gi ñu genn ci ngone ci lako wax ne dal fi mu ñoo ngi xalaat ngir mëna nak créer benn monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali lol nak da bok ci benen étape bop fas nañ ko yene tek ngir genn ci walum colonisation monnaie bi nga xamne monnaie la bop wa France ñooñu ko imposer dañ ci bëgg genn ba set wicci la général Omar Abdul Abdourahmane Tiani kon xamle ci télévision nationale bu réewum Niger ñoom kon li ñu bëgg moy génn ba set wicc ci France wala bok France CFA mi nga xam ne mën na la euh xam France bi mu colonisé Séné manam réew yi rek réew yi Afrique yi ci la ko andi won ñetti réew yi nag daa bokkoon ci réew yi nga xamné France dañ leena a colonisé woon te tey jii nag la bëgg ñom moy génn ci France ba set wicc ñetti réew yi la yoo xam ne fi ñi leen yor moy ay militaire waye dal waxtu nek rek seen ay dogal di gën di radical seen digënté France lañu bëgg nak buñ sukkandi ko général Tiani moy du dara néna ñom ñun dañoo bëgg mom suñu bop liñu bëgg dal moy suñ réew yi nek réew yi mom suñu bop duñ ko ci kenn walum colonisation bi nga xamné mo fi amone da wara jeex réew lañ comme ñëpp dañoo bëgg mom suñu bop doxal suñu bop ba tax na ñun ñett ñoo bëgg taxaw créer suñu euh, monnaie bop général Tiani nak waxul kagn la ak naka lañu koy defee ak namuy tuddu waye dal possibilité mom dal naka évoqué wax ko te na ña ca ñanga ca itam waxtaan ci biir seen mbotay gi ñu taxawal muy mbotay gi nga xamne mo ëpp moy alliance des états du ciel ak seen expert yi ñu ci am ñanga ca waxtaané ngir man ko jëmmal Mouhalim Info. ay di dem Europe ñi di dem ay Suisse ak ay ay ay allemand man dama tégg réewum bi yépp di dem ay Afghanistan ay Israël. ay ay ay ay ay Irak teere Tanzanie